du yàq julli xalaat du yàq julli julli dafa am yu koy yàq wax wala nga jàllar bëkk ba jublu na le wala nga yooyu mooy yàq julli waaye xalaat danay wàññi yooli julli waaye du yàq julli mm-hmm. am na ci julli nag yoo xamante ne of course danay laal imaam bi te du laal ñi nga xamante ne ñooy euh, ñoo ñoo ñoo ko ñoo ko moom mm-hmm. waaye yu ci bari bu imaam yàqu bu imaam yàqulee ñi nga xamante ne ñoo ne ci gannaawam danañ yàqule waaye léeg-léeg imaam dagg ba pare ñaan ñi nga xamante ne ñoo ne ci gannaawam ñu ñëw àggali julli loolu danay am waaye nag xalaat moom du yàq julli du wàññi si jullig imaam du wàññi si ma moom gi dara waaye nag li ma lay wax rek dañ fexe xalaat bi ñu koy tënk ci julli gi yàlla mooy ki xam man tey maa la doon laaj yaa ngi doon wax yëfi cigarette am na ñoo xam ne dañ dee wax ne foog suñoo dog dinañ ndax baax na pour dogee cigarette léegi-léegi dang ne dégg laajte boobu dogee cigarette tey parce que cigarette baaxul. waaw mu ngo léegi boo doog nga dogee tàndarma. mu ngo boo dogee tàndarma ba pare. Mhm. bu fekkee ne mënoo bàyyi tux. Mhm. amul tux baaxul. baaxul de wax dëgg. tux baaxul baaxut moom. Ah. Mhm. wa yuhillu lakum tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. alquran ko wax moo tax am na yenn borom xam-xam yoo xam ne dañ ne cigarette dafa xaraam. yàlla dafa daganal ci yéen yi teey. xaraamal ci yéen yi bon. te tux kari sax xam ne tux baaxul xam nañ ko wax de baaxul baaxul sa xel dogee tux moom wóorul mhm. ne mooy da ngay fex am ab tàndarma ñetti tàndarma waaw nga dogee ko ba pare mhm. bu ko defee nga dem booy dem tuxi sa tux ay satu boo defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne mhm. na ngeen yéex xëdd maanaam na ngeen xëdd sunna la ba pare yéex a xëdd it fii xëdd paasawut sunna la xoolal rek bokk na ci teggiin yi wala yi nga xamante ne mooy teggiin yi teel dog teel dok fik dok fik fik feeg dok jonne rek nga teel a dog waaye ko parce que nga non man dal na bay ba wa ba si kanam man jàmbaar la ah ah du affaire du affaire jambar du affaire jambar so waxtu bi jotee def ko dal def ko bu waxtu jotee rek doxal loolu yëpp sunna la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci ay tegginam ay ñaan boy boy boy dag sa boy dag sa koor nga ñaan bokk na ci teggin nga moytu place yi nga xamne ne am na am nga si sikki sàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun wa baynahuma umurun mustabihaat nee na li dagan dafa leer li xaraam dafa leer waaye seen diggante dafa am ay diggante yoo xamante ne dafa xaw a ñagas mu am lu xaraam am lu yooyu mu ne na ko moytu mu rawatu ci weeru koor weeru koor lépp loo xamante ne yaa ngi koy xaw a xalaat na ko moytu film yi léegi. <laughs> yi nga xamante ne film yu. musique bi dafa wàññi yool bi ñenn nga nekk ci musique bi le wala ne maa ngi dàqi koor dem sa bij ba dem sa bij ba. Mm-hmm. te boo demee sa bij ba yooyu yaa ngi fay gis yooyu mm-hmm. mm-hmm. ko bàyyi suñu xelu baax ay ñu dem ci yi nga xamante ne. danañ koy alaaw ci weeru koor. nit ku oor itam du rek. benn waaye na ñu nii rek bu am na yoo xam ne dañ dañ koy anaaw léegi boo ooroon dugg ci biir ndox di feey yooyu yëpp waaw dafa mel ne am na benn laaj bi ñëw salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Ustaz ngi leen ziyaara bu wér dana yàlla nangu ziyaara nangu bu baax a baax a baax na yàlla yàlla nangul xam naa ni façon waare yi loolu moo am solo Mandaye jërëjëf. ndaxte kenn du mer lii kenn du koy fàttalee. Hmm. te dañ ci amul njariñ lool lool. Hmm. jërëjëf jërëjëf. dañ toll ni nit ñi li ñu soxla loolu mooy ne. Hmm. ngeen faram-fàcce seen diine yi. waaye jarut ngeen saaga di kilifa yi loolu amul solo. léegi fi ñu toll nii am na waarekat yoo xamante ni suñu tàmbalee rek nii ni ñu fay seen rajo fay seen télé. même su fekkoon li ñu wax lu baax la. ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. su ma olof bi setoogut. bu baax noonu seet na seet na wax dëgg macha allah seet na. waaye def naan li mu wax. non non non dégg nañ yëpp seet na wecc fan ngaa koolee. maa ngi collé Brikama. Brikama jërëjëf waay set na wàcc. bëggoon naa mën a bëggoon naa mën a soose comme yow. ñu eh, ñeneen jàngkat yi. Mm-hmm. <laughs> nañu roy comme docteur yi. jërëjëf jërëjëf. seen mu ngi baax lool nit ñi ñu ngi am ci am ñu ngi am njëriñ lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. lu ñu saaga kenn kenn du wax ne kii li ñu wax nii naxari nañu. jërëjëf jërëjëf mm-hmm. waaye ki xam ni loolu du leen bett wallaahi mhm. ku baax ku sax fu baax lu baax rek lay def jërëjëf jërëjëf sëñ bi jëf mhm. ñu ngi lay ñaanal bu baax baax a baax yàlla yàggal yoo tam amiin amiin bu leen ñu fàtte ci ñaan abadan yéen tam jërë ngeen jëf mhm. amiin allah jërëjëf kon dafa mel ni ay sotu ñu ñuy wan waxtu wi dafa ok léegi ñu ngi lay wax ne rek am na yoo xamante ne alaaw nañ ko ci weeru koor yu mel ni ngay or ba pare nga nga féey ci ndox dégg nga nga or ba pare nga am sa jabar nga mel ni nga fóon ko waaye fóon boobu du nga bàyyi sa xel bu baax a baax a baax yooyu yëpp du yàqu koor bi sart nag mu yem foofu léegi lu mel ni tus ngalu yëpp dañ koy man alaaw nañ la ko ci weeru koor lu mel ni péngu mm. nga nga feebar nga dem péngu péngu waaw alaaw nañ la ko ci weeru koor mm-hmm. mel ni nga jël deret nga dem mm-hmm. ñu kii jël sa deret mm-hmm. loolu yëpp alaaw nañ ko ci weeru koor kon yëpp nit ñi war nañ koo xam lu mel ni gàllax ndeku nañ ko ci weeru koor waaye fexeel nag bu mu dugg ci bu bu ndox mi dugg tooth brush waaw tooth brush moom dañ ko sib dañ ko sib waaw dañ ko sib moom liñ liñ gënal li leen gënal mooy soccu soccu siwaak moo gën mm. tooth moom luñ sib la Ah, because tam xam nga day xaw a neexal xet ba pare te mun naa rëcc waaw waaw kon léegi ah, liñ li leen liñ gën daal mooy siwaak maanaam bu mhm. fekkee mën nga am socc boo xamante tooyut mhm. ñu ko soccoo loolu moo gën bu baax a baax a baax baax mhm. kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne war na koo xam wala itam tuflit yooyu yooyu yëpp lu a moytu la tuf fii tuf mm-hmm. ñuy kii la waaye bu demee ne ba mu bari mm-hmm. loolu nag boo boo xëy da nga koy tufli ci biir bi ci mm-hmm. biti kon dafa mel na ñu ñuy wax ne. waxtu bi li ci des bariwul. Mhm. ñu ngi lay sant ay sët bu baax a baax a mhm. baax. di sant ñi nga xamante ne ñoo ñu doon seetaan. Mhm. ñi si man a kool kool ñu leen sant bu baax te di leen gërëm. ñi nga xamante ne tray nañ te action ci ñun. ñoom it yal nañu yàlla yool bi. yàlla ay ah, ah, ah, sëriñ defal ñu yoolu weeru koor bi. te nañ fekkee ko déwén. ñu ngi ñaan nit ñi ñu def ko mu nekk koor ak jàmm. yàlla saxal ci dëkk bi jàmm. ñu def ko itam mu nekk école boo xamante ne bu ñu paree jikko yiñ ci bàyyi yëpp mm-hmm. yal nañu yàlla musal pour ñu dellu xaat si mm-hmm. wa axir daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf docteur Omar Jah yow tam ñu ngi laa gërëm bu baax si sa ndooleen si suñ programme yi ramadan mubarak bi di ñaan yàlla ni ñu si duggee si bismillahi rahmani rahim ñu jekkale ko si alhamdulillahi rabbil alamin di ñaaxaati nag joolaaye poli bu ñu def fukki fan rek daw nag nañ continuer na mm-hmm. weer lañ wax na nekk weer lii la ñu waxtu wi may si suñ programme yi ramadan mubarak Aysatu Faye moo leen ko doon indil ba beneen yoon wa axiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم بوكي دي لين دالال سون بروغرام كي و ان اي بيغا خامتاني دي نين بوب دي سنسن لاتي يي نين بوغا لاج سي بيريم دين اك سي بيريم ويد وير بو تيد بي دي ويري كور تاي ناك في نيغ لين في امال استاذ سليمان ماساني سيسي دينا لين توتو سون كويشنز يي نين بوغا لاج استاذ نيغ لاي دالال سي بروغرام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Euh, ñu ngi nuyu mbooloom euh, ki nga xam ne ñu ngi ñoo déglu incha allah te du ñu seetaan ñu ngi leen waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu si seen programme euh, correction ak ak sas waaw oustaz nañ dem si corrections yi first correction bi kii mu ngi laajte naka lañ dee sangoo janaaba naka lañ dee sangoo sangu set naam sangu set wala sangu janaaba dafa am fukkaaw dañ ko xaaj ñaari ñaari xaaj mhm. benn xaaj bi soo ko defee mun nga si mun nga mun ngaa julli na da ngaa set te mun ngaa mun nga mun nga mun ngaa julli wante matut lu mat mooy mooy ànd ak njàpp mooy nga indi ndox boo xam ne dafa set nga raxas sa loxo ñetti yoon si jumba ak si oom gannaaw ak si kanam nga raxas ko ba set